يجري السيئات وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين mbokk jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonte bi salallahu alayhi wa sallam ak ginnaaw bi ñu feddaliwaatee suñu ngëm ak suñu yaakaar ak suñu wéetal ak suñu wéeru ci suñu borom subhaanahu wa taala ak ginnaaw bi ñu feddaliwaatee suñu diggante ak sayidina rasulillahi salallahu alayhi wa sallam suñu taalibe ak suñu nangu ak suñu roy ak suñu cofeel jaarale ko ñaar yépp ci shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah di ñaan borom bi subhaanahu wa taala dund ci loola dee ci loola ak mboolem jullit ginnaaw loolu yépp di ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bisu tabaski bu rëy bi bés bi nga xamee ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tudd ci alquranul karim ci ay aay yu wute ci ay saar yu wute kon wane bés bi bés bu rëy la bés bu bés bu mag la boobu mooy al iidul akbar lil muslimin mooy iid bu gën a kawe bu gën a rëy bu gën a mag ci ñaari iid yu jullit yi am kon ñu ngi leen ci di ndokkale di leen baalu àq di leen baal àq fu ñu mën a toll allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd si situation yu mel nii lu jiitu mille quatre cent quarante quatre ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw fële ci arafaat mu janoo ak lu toll ci téeméer ak ñaar fukki saxaaba muy wax ñoom af ñaar fukki junni ak ñaar fukki junni ak ñaar ah waaw téeméeri junni ak fukk ñaar naa tasay jazakumullah xayr kon lu toll noonu ci ay jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo ak ñoom di wax ak ñoom ci jamono bi nga xamee ne moom dafa ñëw ci situation yu metti xaw lu ak suñu situation yi ay nit ñi di rayante di faagaagante di saagante di xasante ci ay xasaayit di deflante lu nekk di xañante baax di dog mbokk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala xamal lu moom mooy kan pour ñu mun ko rek te aussi yor suñu borom subhanahu wa taala wër lu mu ñu defal xamal ñu dañ ko war a yëg dañ ko war a xam dañ ko ci war a sant tamit mu ne laqad manna allahu ala almuminin moom borom bi subhanahu wa taala mooy waat ci borom bi ci boppam mu ne laqad manna allahu xasam mu ne wallahi baaxee na jullitu baaxee na aji gëm yi jamono bi ma yónnee ci ñoom yonent bi bokk ak ñoom yónni mu ci ñoom yonent balaa yónni mu ci ñoom yonent jinne déedéet ki ma yónni ci ñoom mooy nit comme ñoom rasuulan min anfusih bokk ak ñoom ngeen xam ne yaayam ak baayam ak cosaanam mu xam leen yéen tamit naka noonu ngeen di dund ak moom ci jamono naqar ak jamono bànneex kon borom boobu baaxee na nit bu baax a baax te yonent bi ñëw lu muy def lan mooy liggéeyam yatlu alayhim ayaati di jàng ci ñoom santaane borom bi subhaanahu wa taala wa yuzakkihim di leen set settantalal leen setal di leen fóot fóot xol yi fóot lammiñ yi fóot jëf yi ba nga xamee ne ku fa jëm bu dajee ak sa borom sa borom dina dëkk ci yow wa yuzakkihim waaye wa yuallimuhum alkitaab wal xikma di leen jàngal alquranul karim di leen jàngal sunna sunna bi sell bi bu leer bi mooy xadis yonent bi sala waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yu demee yuallimuhum alkitaaba wal xikma loolu moo tax quran ak sunna yemul ak leen kenn warul méngale quran ak leneen wala sunna waxu yonent bi ak waxu keneen dégg yii suñu borom subhanahu wa taala moo témoin ci alquranul karim wa yuallimuhum alkitaaba wal xikma mu ne wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin balaa alquran di dikkal di leen dikkal sunna yonent bi salaa sallam di leen dikkal dañuy nekkoon ci réer bu fes fes fes kon ci loolu mu dem di leen jàngal durant vingt trois ans yonent bi salaa alayhi sallam di leen yar di leen won di leen tegtal di leen tettee jëm leen ci borom bi subhaanahu wa taala ba bésu arafa bii mu taxawal bi mu taxawee mu jàkkaarloo ak cent vingt lu ëpp cent vingt saxaaba mu jàll ak ñoom yàlla wàcce ci moom bésu ajjuma cent vingt waaw mooy lu ëpp cent vingt cent vingt mille d'accord téeméer téeméeri junni ak ñaar fukki junni yu teg jàll ak ñoom yàlla wàcc ci moom sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jibril indi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina tey watal naa watal naa leen diina te dara dootu ci wàññeeku dara dootu ci dolleeku te bëgg naa ci lii ngeen di doxale bëgg naa ci yéen kon jullit amatul lu mu war a dolli ci diine amatul lu mu war a wàññi ci diine du ci jëf du ci wax du ci doxalin du ci ràbb bi ñuy ràbb bul jël alquran di ko ràbbee di ko yonent bi salaa sallam ràbbeewu bul jël sunna yonent bi ay dikk di ko ràbbee di ko yonent bi salaa sallam ràbbeewu bul jël ay doxalin di doxalin di wax ak loo xam ne lii yonent bi waxu bul wax lu alquran waxu waaye wax ci diine wa raditu lakum al-islaama diina kon képp ku dem feneen di wuti leneen yàlla ne duma ko nangu wa man yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu képp ku dem di wuti beneen diine bu dul diine lislaam yàlla ne duma ko nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ahdatha fi amrina haadha maa laysa minhu fa huwa radd diine gii tamit ginnaaw bu dikkalee leen ku ci dolli dara wàññi dara nga xam ne dañ ko delloo ci moom yàlla du la fay boo boo indee anamu jaamu yàlla rab bi nga xam ne yonent bi xam ko bu dikkoon tey dina wax lii lan la fan la jógee nga jaamu noonu borom bi subhaanahu wa taala beneen jaamu yàlla bu dul bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane boo ñëwee ëllëg dañ la koy delloo demal seet ki nga doon jëflante ak moom fay waaye du yàlla lu yàlla moo lay fay pourquoi pourquoi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defin bu loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaax nit ñi ci defin gi même bu bu la nee ak boo boo boo tisolee nekk alhamdulillah boo ne alhamdulillah am ñoo xam ne ñu xëy ñuy alhamdulillahi rabbil alamin wa salaam ibnu abbas déet déet déet déet bokk rabbil alamin bokk ci tisit yonent bi alhamdulilah la ñu jàngal foofu la yem yàggal foofu waa ji ak maa bëri ñu ñu ah ñu ngi dolli ñu ne waaw li ñambaas la rek foo mos a diine diine bu ñu ko ñambaasee rek yàqul dañ bàyyi ak ñambaas yi waaw. kon ci situation yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw ci Arafat nee leen aussi ku bi taqwallah maa ngi leen dénk dénkaane ragal yàlla subhanahu wa taala di leen ñaax ci topp borom bi subhanahu wa taala ci dëggal borom bi subhaanahu wa taala waaye ci am yëg-yëg ci borom bi subhaanahu wa taala mu leen di sant boo koy def nga def ko ci sa yëg-yëg dëgg-dëgg ci sa xol sa defi jóge ci sa xol waaye nga am communication en direct ak ci borom bi subhaanahu wa taala mu ne maa ngi leen jàngal fii di leen xamal fii dara ngir xamal ko année prochaine at bu yëw ndax dina ko fekk ndax dañ dajawaat fi te noonu la ko yàlla defee balaa beneen balaa beneen tabaski di ñëw fekk génn na àddina sallallahu alayhi wa sallam bokkal ci ñu leen dëkk ñu tënkal leen ko rek yenn koy ñu indi leen mu ne yéen nit ñi da ngeen xam ne inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum xaraamun aleykum xurmati yowmikum haada fi baladikum haada mu ne da ngeen xam da ngeen xam ne seen deret kenn ku nekk deretu moromam def xaraam ci moom kenn warul gaañ moromam waxuma nag ray ko kenn warul génn ni deret ci boromam moo xam bu góor la moo xam bu jigéen moo xam ndaw la moo xam mag la mais bàyyi leen xel ci loolu waaw mu ne seen alal benn dërëm benn fifteen du dagan ci yow nga jëlam ci keneen moo xam ne koo naxee diine wala ne koo naxee war ba nga jot ko nit bu lay yëkkati di la jox fekk ci dëgg la la ko jox te ànd ak bànneexu bakkanam moom mu nangu di la ko jox mu ne wa araadatu seen seen der wa araadatu seen der tamit xaraam na seen diggante bu kenn jëw kenn bu kenn tooñ kenn bu kenn saaga kenn bu kenn xas kenn mu nekk xormati yawmikum haada mu tey bu yàlla xormaale joxe xurum bésu arafa moom la yàlla joxe xurum der bu nekk ci doomu aadama mais bu dul julli ngir dafa ne yaa ayyuha naas nit ñi nit ñi nag bu dul julli bokkal kon jullit sañu tool bu dul jullit rawatina nag jullit borom kon xol bi ñuy jox arafa bu ñu demee foofu même bu la nit gaañee yow da ngay muñ da ngay gis ki nga dàq wala nga buus mu ne la baal ci ñu dëngoon lislaam bu njëkk waxuma léegi léegi moom pour feeñe rek moo fa ne waaye ñu dëngoon lislaam di dem di di jëriñoo màkk boo gaañee nit ki dalay wax baal yow da ngay mujj rus daje nañ am ñenn ci ñoom waaye mu jigi ñu gis foofu doole rek ku fekk rek mel ne foofu boo ñëwee doole moo koy moo koy dox pour dóoraate ak ak forcé def lu nekk te li ngay def fii nit bu xaraam ci yow foofu boo defee boo defee lay gën di xaraam kon fii beneen nit mu xaraam mu ne gis ngeen màkka lu mu xa xorom bu nekk màkka nga xam ne kenn waru fa même même seen garab kenn du ko dàgg noonu la deru julli alalu jullit deretu jullit xaraamee kenn ku nekk ci morom wala deretu nit kenn ku nekk ci morom kon lii am na lu mu ñuy jàngal fan lañ ci toll fan lañ ci toll ñun waa Sénégal xam ñu ko woon waaye léegi dëkk nañ ci mel na ne xutba yëpp bi sama sa defoon yow mu arafa tey lañ ko gën a soxla lu bii xutba lañu préparé woon mais dama gis njaxas gi am ci ñun tey ak tooñaate bi nekk suñu diggante ak rayante bi nekk suñu diggante vraiment ma nee naa dañ jël xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu barkeelu ko mun na am ci barke borom bi subhanahu wa taala ci barke yonent bi ci barke alquran karim am benn nit mu dellu ginnaaw ci mbon gi mu naroon def wala ci kaddu gi mu naroon def wala ci at rayaate gi mu waroon def wala càcc gi mu waroon def wala tooñaat bi mu war a def mu dégg loolu mu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko waxloo yàlla moo wax ci alquran karim yàlla moo wax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu ginnaaw mu am mbégte borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee bi saa yu waxee benn phrase da lay wax ala hal ballag ndax jottali na ne ko naam ñu ne ko waaw mu ne allahuma fashal sama borom seede mu seede mu fit nag ndax wax naa ñu ne waaw wax nga kay ndax dëgg ngeen ñu ne waaw mu ne allahuma fashal sama borom seede li ma li ma wax man tamit jottali liyakuna rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala nnaas beneen bi mu ne leen kenn ku nekk confiance bi nga amee woon na nga ko delloo borom loolu alquran moo ko njëkk a wax inna allaha yamurukum an tuaddu amanati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl mu ne képp ki nga xamee ne jullit yaa ngi fi taxaw di ma déglu fexeel ba àq bi nga yoral keneen delloo ko balaa ngay génn àdduna boo jógee fi fexeel nañ ko delloo borom mu seedal borom bi tamit mu seedal leen seedal borom bi mu ne ndax jottali naa ñu ne waaw ne allahuma fashal mu jóge foofu dem ci système bi fa amoon système économie bi fa amoon ak politique bi fa amoon bi nga amoon booba kaay bu fekkee da nga dem douche mu nga ñëw fii mu ne gis ngeen ci wàllu commerce parce que jamono boobu commerce rek moom doon te commerce bi dafa métti woon riba moo ci nekk bu métti ñu am alal rek nit da lay lebal cent franc ngeen def app bi une semaine une semaine bi jotee boo amul loo fay ñu mu dë- mu ne dangay dolli juróomi dërëm mu ñalaat beneen semaine wala beneen ñaari semaine noonu lay dem ku mënul fay cent franc bi ko lebaloo boo ci dollee juróom kañ lay fay moo tax yàqal àqal islam bañ loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen non balaa balaa commerce bi deret ñoom dañu doon rayante boo rayee kenn ci benn xeet wala benn famille ñoom du ñu dal dul ñu rayaat ci yow minimum benn boobu wala ñaar wala ñett bu fekkee ay kilifa lañ dañuy wax ñun kii ñu ray ñu ñoo ko gën kon dañuy ray ci ñoom ñett nit ñoo xam ne defuñu woon dara mu ne gis ngeen deret yooyu ñu nekkoon suñu diggante kenn ku nekk mu ngi wax ne famille diw il faut ñu rey ci ñoom ñett ñu ngi wut ñu ñu leen di rey mu ne loolu teg naa ko tey ci suuf li ma ci jiital mooy suñu deret ñun dafa amoon benn frère bu ñu yóbbu woon ci benn famille ñu koy nampal foofu ñu rey ko foofu am ñu ko rey foofu ñu waroon ñoom ñu doon préparé pour rey ñoom foofu maximum possible pour ñu rey mu ne boobu teg naa ko ci suuf kenn dootu rey kenn ku rey dañ lay rey mu ne ci wàllu jëflante bi riba bi ma njëkk teg ci suuf ma teg ci sama tànk waaye riba sama papa Abbas Abbas ak papam la bokk benn baay Seydina Abbas ñuy tuddee fii ay nit grand commerçant la woon te riba la doon jëflante comme ñëpp mu ne riba am boobu ñi ko yore woon ñi ko yore loon yëpp yor bu yore woon daal téeméer téeméer day fay bu fekkee tegoon na ci junni junni boobu teg na ko ci suuf téeméer bi rek day fay bu doon juróomi dërëm mu teg si fukki dërëm teg naa loolu yëpp ci suuf fukki dërëm yi rek mu ne na ngeen xamee alal jaamu kenn waru ko jël ci ci tooñ ak ci jaay doole ak ci nax mu ne ndax jottali naa mu mu ne ñu ne naam jottali mu ne allahu fashal sa borom seede mu ne leen laa tarjiu baadi kuffaara yadribu baadukum riqaaba baad mu ne dal bu leen dellu suma ginnaaw dina yàq seen biir comme yéeféer yi yéen nag ay yéeféer dina yàq seen biir kuffaara yadribu baadukum riqaaba baadikum baad kenn ku nekk di wut lu mu rayee moroomam ci ak lay bi muy lay wala Seydina Rasulullah di wax loolu yàlla wan na ko am na lu ñëw ay jullit di rayante ñu génne àdduna amul quelque année après commencé di rayante ba léegi ba ñun ñu amoon jàmm sax xamuñu woon yoon wala dugg nañ ci at bu nekk ñuy rey rek manifestation bu nekk ñuy rayante rek suñu jullit te kii rey bokkam lay rey kii rey xamul lu tax muy rey ku ñu rey xamul lu tax ñu rey ci ay caaxaan laa tarjiu baadi kuffaar bu leen dellu nekk ay yéeféer yadribu baadukum riqaaba baad ngeen di reyante seen biir gis fu ñu toll tey war na war na jàngaat xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolemu jumaa yi ci mboolemu ëtt yi ci mboolemu meeting yi xutba yi ci meeting politique yi lañ ko war a jàng foofu la gën a amee njëriñ que fi parce que am na ñoo xam ne ñoom du ñu jaar ci jumaa sax te ñoom ñooy taal kamb gi foofu kon yii duñ ko war a jàng loolu moo tax jullit bu amee complexe di wax diine ci meeting am problème la koy la koy indi parce que ñun tubaab bi dañoo jàngal boo ñëwee boo ñëwee ci meeting sax ñu wax bismillahi rahmaani rahim ñemoo tudd yàlla ci meeting politique pourquoi politique jaamu yàlla politique yi yomb politique yi bonul xanaa politique Sénégal bi moo bon bu dee politique nag dangaa woo nit ñi pour fexe leen ni ngeen faagaagalee diw ni ngeen reyee diw ni ngeen tëjee diw ni ngeen dooree diw ni ngeen yàqee nguur diw ak yooyu ak yooyu mooy seen seen boobu boobu boobu du politique boobu reyante la rek jaahiliya bi amoon balaa lislaam yàlla ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indil ñu lu ñuy aar ci loolu mu ne bàyyi naa leen ñaar yi nga xam ne bu ngeen ci moyee du ngeen rayante du ngeen xiiroo du ngeen naayo mooy lan kitaabam waaye mu sunna rasul sallallahu alayhi wasallam téere yàlla bi ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ ci moyee du ñu rayante foo gis même saa bi boo gis rayante am rek am na ku bew bàyyi jàdd yoon yi am na ku jàdd yoon ñaari jullit bu ñu rayantee rek am na ku jàll ñaari jullit bu ñu xeexee rek am na ku toll loolu sax ñaari nit rek bu ñu xeexee rek am na ku toll kon lu ñuy gindi ci loolu mooy Alxuraan dellu ci Alxuraan pas Alxuraan bi ñuy jàngal ay néew pas Alxuraan bi ñuy sàcc ba pare defal leen ba balaa ñu may tëj pas Alxuraan bi may def njaaxum ñëw defal ma alquran pour yàlla suturaal non non du alquran boobu bii alquran mooy alquran bi ngay fas yéene jëfee di tundira man kaana hayya alquran ñëwul ngir ay néew la loolu moom ci bidaa yi la bokk waaye sax yonente musul jàngal kenn kaamil kenn musul jàngal yonente kaamil saxaaba yi kenn musul jàngal kenn kaamil ci ñoom génn àdduna ñoom kenn musul jàngal keneen kaar yi noonu ba trois générations yu yonent bi témoin yëpp kenn mosu jagal kenn kaar loolu moo tax jàng kaar bi ci boppam bi daal loolu moo tax ak du am njëriñ du am jeexital ci ñun bu am solo ñuy jàng ñi ñoom seen poste la ñu wutal kële tamit day boo réeree doo xam dara yaakaar rek day jënd alquran kenn mënu ko jënd loolu moo tax ñu tere fay kaar yi alquran ak jàng alquran yow da nga jàng ngir yàlla nga yegg ci sa borom subhanahu wa taala bu doon mu nekk ngir yàlla sax bu baax waaw kii boo ko jàngalul du la jox benn dërëm kële tamit boo ko joxul benn dërëm du la jàngal léegi nag ana yàlla amatul kon mu ñaax leen ci loolu donc léegi problème politique bi ñëw Sénégal ci seen situation traite la ci mboolemu kuy bind saafara mboolemu kuy woote wu xam naa ëllëg mboolem ku mun listixaara mboolem ku mun téye nit mboolem ku mun kaste gémmiñu nit ak yooyu ak yooyu mboolem ku mun rayaate yooyu yëpp léegi terek la ci ñi nga xam ne ñooñu la ñuy wax ay siri ñooñu la ñuy wax ay nit lislaam man li ma ci gën a métti li ma ci gën a jaaxal mooy ñu ñuy dem ci ñoom ñëpp ci lislaam la ñuy askano ci al xam-xam la ñuy askano li ñuy wax sëriñ bu aay mu ngi fi sëriñ bu aay muy rayaat xanaa deful yonent bi salaa sallam sëriñ bu aay buy def bu aay buy def njabam di la jox la demal indi ginaar bu ñuul demal indi géléem bu mel ni bu mel na demal ci armée yi indi mu foofu bopp nit kii yaa xam ne ay cër ak yooyu boobu sëriñ bal boobu yéefar la loolu mooy yonent bi saxal ne laa tarjiu baadi kuffaar adribu ba'dukum riqaaba ba'd bu leen dem sama ginnaaw nekkaat ay yéefar di def ay jëfu yéefar di defalante ak jëfu yéefar di reyante ñii ci njabar ñii ci fetel ñii ci paaka ñii ci dóorante ci saagante ak ñii ci moralement di la rey ci di wax ci yow loo xamee ne ba yow man qiyaama du denc yow nafa'ana Allahu wa iyyakum bimaa fil qur'aani wal aayaati wa dhikril hakiim allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na ngeen xamee sibaabu muslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufr mu ne saagante ñaari way jullit ñaari jullit ñuy saagante wala ñuy xastante kenn rek di xas keneen ki ne loolu fusuuqun day tax kenn ku nekk ci ñoom nekk faasiq wala iyaazu billaah def naa ni ñun kenn pour nekk faasiq yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne sibaabul muslim fusuuqun jullit taxaw di xas moromam jullit di saaga moromam jullit loolu facebook yow mii di def loolu wala yéen ñaar di defant loolu ay faasik ngeen kon ku nekk faasik boo moytu sa lislaam ah sa lislaam dina takka suufa mu ne nag bu xitaalu kufur mu ne rayet nag loolu moom yéeféer mbirum yéeféer ku def loolu bakkaar yéeféer ngay am même ko nekk dem di rayante rawatina ci caaxaan gii politique gii di ci rayante ngir diw na des ci nguur gi ngir diw na jóge ci nguur gi loolu moom xam na nga xam ne yow mii yaa ngi ci mbirum yéeféer boo génnee àddina atte yéeféer lañu lay atte fii dañu lay atte si zahir bi jullit nga dañu jullee dañu kii yóbbu la defal la ay kaamil ay ah ay sarax ak yoo xam ne saraxu aada kaamilu aada ba pare waaye boo demee fële atte yéefar lañ lay atte loolu moo tax ne bisa ne sallallahu alayhi wa sallam moom xitaalu bu kufru mu ne rayante bi ñaari jullit loolu moom mbirum yéefar kon ñoom ñu ngi ci niveau yéefar yàlla ci yàlla musal kon ñan ñooy rayante bi du ay jullit néew na koy ku dul jullit ñu ñu rey ñi ñi ma dégg seen seen seen tur daanaka xanaa benn wala ñaar waaye subhaanallah kon nañu yàlla sax man yàlla sax te alquran jiitu loolu mu ne wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaahu jahannam képp ku rey jullit bakkan jullit ne yow sa amoo payoor du dugg ci safara jahannam wa ghadiba allahu alayhi ànd ak mer merum borom bi subhanahu wa taala ci sa kaw wala anahum ak rëbb yam borom bi subhanahu wa taala ci sa kaw wala loolu yàlla yam rek dina tabbi safara déedéet dina ànd ak meram ak rëbb kon nit war na moytu de ci nit war na war na nekk ku ragal kon lii la ñu jukki woon tuuti ci xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mun leen ko indil ngir ngeen mun ko jëriñu ginnaaw ñun ñii di wax lii ko njëriñu ñu yàlla ñu yàlla may jëriñoo xutba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yàlla may nopp yi nga xamee dañuy yëg ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy déglu duñ ko xabib buy wax déedéet yonent buy wax lay jottali soo bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne نطر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فعدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ne yàlla na yàlla xéewalal nit bi nga xamee dégg na sama kàddu jàngal góorgóorlu ci jottali ko jottalikat bi ci keneen ki nga xam ne déggu ko woon wala xamu ko woon waaye jottaliku ni ñu ko ni ñu ko waxee baa yow nii di wax ni ñu ko buggee loolu war a gis nga kàddu yàlla kàddu yàlla bi sallallahu alayhi wasallam du yow it waroo ko modi kenn waru ko modifié boo modifié rek mel na ne yaa ngi fen ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay wax lu yàlla waxee mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne fa addaa kama sami'a nga jottali ni ñu ko déggee yow loolu ni ñu ko jàngee loolu di ko jottali mu ne fa ba mu ballarin aw aami sami mu ne bëri na ñi xam ne ñu ñu jàngal ñoo raw ñu leen jàngal wala ñuy jottali ñoo raw ñi nga xam ne ñoom ñooy jottali ci dégg bi parce que loolu fekku na mun nga wax nit aaya mu dégg ci aay bi lu raw yow li nga yow bi di jàngale li li ci dégg ak li ci xam loolu yàlla mooy may nit ki lool may yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla na mu ci moom baax da lay may dégginu diine bu rafet fekk déggoo diine diine bu rafet xamal ne sa diggante ak borom des na tuuti loolu moo tax yoon bi sa am di ñaax nit ñi toujours dañu góorgóorlu ci jàng dañu góorgóorlu ci déglu dañu góorgóorlu ci laajte dañu góorgóorlu yooyu yëpp waaye laajte gi jàng gi ak déglu gi yépp nga nekk ca Qur'an lan la Qur'an santaane lan la ko santaane lan la borom bi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la ci wax pas keneen lu mu wax wala keneen lu mu ci commenté déedéet du imaam lu mu ci commenté du sëriñ beneen sëriñ lu mu ci commenté déedéet lan la yàlla wax xam fexe nag ñu yàlla may déggin gu rafet tamit nga déglu loolu léegi ci ñoom kon incha allah dañoo war a dem bi rendi ci fin xutba bi ñu ngi ñaanal ñëpp ñaanal réew mi ñaanal njiitu réew mi parce que njiit bu jubut bu baaxut bu jaarul yoon ci jahannama la ñu lu moo tax lislaam daganal ay imaam ay borom xam-xam di ñaanal njiitum réew mi jiitu réew dañ koy ñaanal baax munoo ko jële foofu boo ko rëmbee boo ko xasee boo ko yow ñaanal ko baax rek bu yàlla def na ci moom baax defal ñu ko parce que boo ko baaxee rek dañuy baax waaye boo nekkee di ko rëbb di ko saal bu mel ne comme yow rek affaire bi gën a métti kon ñu ngi ñaanal jiitu réew mi ak mboolem ñi mu ànd yàlla yàlla teg ci siraatal mustaqim yàlla yàlla may xol bu yërmande yàlla yàlla may tawfiq ci liggéey ñuy liggéeyal chab bi maanaam population bi parce que ñoom fu ñu nekk ñun ñoo leen teg foofu suñu alal la ñuy utiliser ñun ñoo leen utiliser nañu dañ ko def ci lu ñuy jëriñ luy jëriñ réew mi luy jëriñ nit ñi kon dañu leen war a ñaanal tawfiq loolu moo tax ñu leen di ñaan yàlla yàlla jubal yàlla yàlla baaxal yàlla yàlla def tawfiq ci li mu gudd ak ci li nga xam ne jëf yi muy kontaan ci moom te ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala te def déggoo diggante opposition bi opposition ak gouvernement bi ñu déggoo waaye déggoo loolu ci doxalin waaye xol yi buggante gi ak bañ a rayante gi ak bañ a ak lu nekk foofu ci ay saagante ak ci weerante ak ci jiiñante ak yooyu yàlla yàlla dindi seen diggante loolu ak ñun ñëpp su loolu amul benn njëriñ opposition lu mu war a def mooy bu état defee lu rafet bu ko mënul saluer sax mu noppi pas bu ko yàq di ko aussi gouvernement ñu nekk ñuy gouverner ñoom it ñu gisee opposant bi def lu baax wala wax lu baax wala proposé lu baax ñu jël ko dimbali ko pas déglu kooku da leen di wàññi mel na ne boo deful kooku wax rek boo defee lu kooku wax rek sa nguur yàqu na moom moo leen di xel naa noonu moom nit la borom xam-xam la comme yow mën a toog sa place kon bu waxee dara lu rafet yow mii jiite nit ñi tey war nga ko jéem nga tenir ko kon kon loolu ñu ngi leen di ñaan yàlla dindi mbañeel gi nekk ci seen xol yi parce que dem na nag soo commencé na sori Sénégal gii dañuy commencé na problème yàlla ñu yàlla defaral yàlla moo mën a defar yàlla comme yéen bi sama sa nee na xolul doomu aadama mu ngi di ñaari baaraamu borom bi subhanahu wa taala da koy wëlbati mu ko neexee kon loolu misaal la rek subhanahu wa taala laysa kamislihi shay waaye pour ñun ñu mun a xam nu mu yombee borom bi subhanahu wa taala borom bi mun na am léegi rek ki nga bañate woon yàlla wëlbatiwaat day ngeen jubóo léegi ki nga jubóo woon yàlla wëlbati ngeen xiiroo di waay kon yàlla yàlla wëlbati ñëpp ba jubóo ñëpp ñu ànd ci jàmm ak salaam naka noonu dañuy ñaanal tamit suñu jiitu diine yi xalif généraux yi fi nekk ak sëriñ yi imaam yi ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla teg tey diine bi ci seen loxo ñu war ko doxal ñu ngi leen di ñaanal jub ak mbaax ñu ngi leen di ñaanal yàlla xiir leen ci jóg ci lii ñu nekk nii ñii julli tey ñu julli ëllëg te ñoo buñ ci nangoon jóg rek dina baax parce que buñ ci nangoo jóg dañuy dellu ci mbind mi rek dootuñu dem ci xel dootuñu dem ci martaba ci mbind mi rek te mbind mi moom dafa leer ñaar rek moo fa nekk julli ñu njëkk a gis ànd leen ak ñoom àdduna bi yëpp wala bu mu lekk àdduna bi yëpp continent bu nekk na ànd te loolu problème communication la woon loolu yàlla baaxee nañu dindil nañu dañu ko waroon njëriñoo pas mu indi lor loraal communication bu amul woon dégg ba ulama yi ne léegi ñu mun a déggante joxante ay information ñoo nañu ànd julli ñeneen ñi mun ñu leen jot ñu bàyyi ñoom tamit ñu seet ñuy ànd waaye ginnaaw tey àdduna bi yëpp bu ñu woote woon fii màkk ñëpp dañuy yëg bu ñu wootee réunion Nations Unies ñëpp dañuy yëg ci même bés la ñuy ñëw ci même kii la ñuy yëg du ñu wax bokkuñu ak Amérique heure du ñu dem nangam nangam du ñu wax bokkuñu ak màkk dañuy dem waaye bu ñëwee di fii la Cheikh Bara di ñu xaar yàq suñu digal nga gis ki dem ci rajo di woote imaam xamul dara di wax ne ñii bakk la ñu àndal xam nga dara gi loolu nekk loolu subhanallah boo jàngoon sax muqaddima risiya li ñuy jàng fii ci Bawol wala ci Kajoor wala Fuuta wala Saalum di nga xam ne kii lu muy wax fenn waaw ñii lu ñuy wax ñii arabise lañu àndal ñuy arabise bokkuñu maanaam loolu foo wacc wacc loolu loolu ànd ak science ànd ak charia ànd ak ak fiqh ñun ak arabise nga ñoo bëgg de trois heures temps fii ak Fuuta sax am na quinze minutes kon yow bokkoo ak Fuuta subhanallah waaw kon ñu ngi ñaanal njiitu diine bi ñoo ngi tawfiq yàlla defal leen jub ci seen xol naka bañ a gis boppam ñoom bu ñu nangu woon tey état bi dañ leen dimbali ñu dellu ci li ñu jàngal tey ñun mazhab Malik may nañu lu yaatu gis nga mazhab Malik bi ñu wax moom la ñu tëgg tey nga gis ñuy ñuy agressé fi ñuy ñuy ñuy def fi ci jihadiste yi yëpp dañu wax ñun mazhab Malik la ñu nekk waaw mazhab Malik la ñu nekk mais mazhab Malik bi ñuy nekk ndax nangu nañ ko jëfee Malik di wax bismillahi rahmaani rahim Malik alhamdulilah rek lay tam imam Malik alhamdulilah rek lay tam ñun ñu ne de ñun ku def bismillahi rahmaani rahim xëy yow ibaadu yow ci jiyaat ci sii nga ko te imam Malik mosu def loolu comme imam Malik xëy na moom Sénégal subhanallah da ngay yaakaar sax da gis sax ñaare ki jàng ki wax jàngal di wax yooyu man moom bu fekkoon sax ku jàngul man de waaye ku jàng da ko jël waaye bu ko am dëgg rek moo leen parce que téere ñuy jàng fii boo ubbee xalil da lay wax bul jàng bismillahi rahmaani xalil bi ñuy jàng fii Touba Fouta Tiwaawo lépp boo ubbee boo ñëwee ci basmala allahu akbar da lay wax na nga naan commencé ci alhamdulilah imam malik loolu la wax moom sax dafa ne bul def duwaaw stifta bul def bismillahi rahmaani di wa auzu billahi imam malik moom mu def am alhamdulilah rek mu ne loolu la abubakar doon def loolu la umar doon def xam nga loolu mbirum xam-xam la du mbirum tariqa waaye dañ ko defaat sëpp jaxas jaxas jaxas dafa mbirum tariqa kii di def bismillahi waaye kii borom tariqa kii def alhamdulilah kii di borom tariqa waaye boo demoon fii Mauritanie di ngeen ci borom tariqa bi allahu akbar alhamdulilah rabbil alamin fekk borom tariqa muqaddam la ci tariqa waaye ñun Sénégal aada rek aada rek ak bànneexu bakkan danañ yàlla gindi kon moo tax ñaanal njiit yi dafa am solo dañu leen ñaanal baax ak baaxal jub ak jubal naka noonu insha allah ñu ngi ñaanal mboole mu mag ñu fi nekkoon samp jumaa ji ñu ci génn àddina ak ñu fi des yépp ñu ci génn àddina yàlla yàlla yërëm ñu fi des yàlla yàlla bàyyi fi bu yàgg ñu ànd ak ñoom maa ngi jàkkaaroo ci ñu bari ci ñoom mag ñi nga xam ne ñoo taxawu jumaa ji ñeneen ñi ndeysaan génn nañ àddina yal na yàlla yërëm di ñaanal tamit suñu jeunesse bi xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ci jumaa ji ay étudiant ay ñu commencé liggéey ñu commencé def seen kër waroon dem di wuti leneen waaye bu ñu paree liggéey rek wala njàng rek fii lañu jëm di organiser jumaa ji di ñu taxawu fii di defal lépp macha allah ba ci jiite di dajale ñuy collecté fii léegi ñu xamul sax nu mu dem ñoom ñoo xam ñoo def liste yi ñoo joxe ñooy def lépp alhamdulilah rabbil alamin ramadan bi gis ngeen kon ñu ñaan ne yàlla yàlla def mag bu ñu jógee fii tamit yàlla teg leen fii ñuy doxal lu ëpp lu ñuy doxalee ñu alhamdulilah bi nga xam noonu ñu ngi sant di gërëm di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jóge ci yeneen quartier démb ba tey suma téléphone day fay damaa branché rek ñëpp ay ay ay téeméer tamit di ma woo fan la sa kii féete fan la jumaa bi féete am na ku ma jox sa numéro fan la jumaa bi féete dañu bëgg ñëw julli nangam nangam xam loolu loolu yëpp bëgg yàlla ak yonent bi parce que xamuñu ma bëgg yàlla ak yonent bi kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla sabaat yàlla yàlla teg ci siraatal mustaqiim yooyu di sàkku ci yéen ñaan tamit di sàkku ci yéen ñaan bu baax ngir boo nekkee njiit am nga problème rëccu rëccu lan yi rëccu rëccu jëf rëccu rëccu yu bëri bëri kon faw ngeen mu ñal waxi gi ni ñuy waxee mais mun na nekk dëkk fekk ni ñu waxee day xaw a métti wala day xaw a diis noonu lañ mel benn bi tukulóor la beneen bi dégguñu wolof bu baax ngeen comprendre leen bu baax a baax incha allah allahumma hadina wa hadina اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم جنب بلادنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصل ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم ادخلنا الجنة وأعذنا من النار واغفر لنا واغفر لوالدينا ولوالديهم ولأشياخنا ولأشياخ سائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته